mel ne dañoo ñëw tey euh, doon def loo xamante ne bii lu ñu jàpp ne xëy na solo si mën naa bañ a bari lool waaye am na yaakaar ne am na tuuti ci solo ndax dañu ñëw ngir xeex li nga xamante ne bii mooy coronavirus. waa mouvement gëm sa bopp Touba ñoom ñoo jóg booloo daal di dajaloo jël seen doole li ñu am mu néew mu bari ñu dajale ko jënd ci ay masques defar ci ay flyers. defar ci tam ay euh, photo yoo xamante ne bii ay affiches yu mag la ñi nga xamante ne bii moom lañ pare pour séddale ko ci li nga xamante ne bii mooy dëkk bi ngir jàppale sëriñ bi ci li nga xamante ne bii mooy xeex bi muy xeex coronavirus. ndax ku ne xam na ne sëñ bi moo taxaw digle ñëpp di takk masque di raxasu di diwoo sel loolu sëñ bi moo ko digle kon mu mouvement gëm sa bopp bu Touba ñoom ñi ngi taxaw ci loolu ngir jàppale sëñ bi ci loolu nga xamante ne bii mooy ndigal li nga xamante ne bii joxe na ko. Euh, suñu coordinateur di Ibrahima Gueye mi nga xamante ne bi moom la président Bougane teg mu nekk région Diourbel tam moo nekk noonu ci suñu ginnaaw moom moo jógee Ndakaaru ñëw accompagner ñu di ñu jàppule ba yàlla dogal bi ñu xëyee ba léegi ñu ngi ci depuis démb lañ ko commencé dugg nañ ci jumaayu Tuubaa seddale fa lu bare bare bari dem ci waa ñi nga xamante ne bi ñooy mu xaddimatul ñooy waa daayiratu mu xaddimatul ma jox nañ leen ñoom itam lu toll ci 500 masques bi ñu xëyee tey ji di ñaareelu jour bi tam séddale nañ ci marché bi lu tollook daanaka 1000 masques en même temps troisième jour bi tam wa dañu bëgg a delluwaat suba incha allahu rabbi li commencé garas Dakar fépp dinañ fi séddalewaat lu bare bare bari incha allahu rabbi ci ay maska ak ay flyers yoo xamante ne bii li muy wax rek mooy di ñaax nit ñi ci li nga xam ne mooy feebar bi nan nga koy moytoo ak nam yi dikkee ci yow ba boo xamante ne bii ñëw na ci yow nga daal di koy xam numéro téléphone yi nga xamante ne soo ci wootee tam ñu daal di lay jël si loolu yëpp mi ngi ci. kon euh, loolu mooy li nga xamante ni bii moom la waa gëm sa bopp Touba doon def tey dépp commencé ko démb di ko def tey jëmale ko suba muy ñetti fan yoo xamante ni bii ñu ngi ci ñuy jaajëfal ñëpp. may jaajëfal ñëpp di sant ak gërëm si invitation bii ma waa gëm sa bopp Touba invité fii si si si Touba ma koy rafetlu lool nag ndax ñoom li ñu def jël seen i ñaq wut si ay masques defar ay flyers pour sensibiliser. sensibiliser pour nit ñi xam nan ni ñu moytu ndikoo feebar bii di mbas mi mu doon initiative bu am solo bu rafet vraiment ñu koy rafetlu bu baax a baax lii Cheikh du Mbow wax ak Oustaz Djibril Ciré wax dafa am solo lool réew mi dafa soxla ay ay doomam réew mi dafa soxla ñi nga xamante ni dina jël seen wàll ci politique teg ko nee ñu daal di xeex ak mbas mi mbas mi jeex ba pare ñu xool naka nañuy tojee suñu bopp janax ñu ñëpp kon di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di wax nag ñeneen ñi si dëkk bi ci di dundee gëm sa bopp di wax ni ñoom ay élément gëm sa bopp lañu nañ def laa même chose ko waa Touba yéen waa Touba vraiment ma lay remercier di sant di gërëm kontaan naa président Bougane kontaan seen jërë ngeen jëf